ak mm-hmm. daaw sonn soo doxee tuuti di appart ah. mais après apparemment dafa commencé woon di fatt. Ah, mm-hmm. par rapport à quand même c'est sévère. Mm. là on l'avait mis sous oxygène. Mm. Mm. Euh, demoon na ba ay 10 litres. 10 litres par minute. mais actuellement il est à 2 litres. en il était à 4. te léegi nii naa ko ba 2 litres. pour voir et il supporte. il a une bonne saturation. sàmmoon que vraiment mi ngi tane bu baax macha allah. kuy ñëw dafa doon fatt. mënu woon noyyi. Ah, oxygène bi dafa bëri woon. voilà parce que bi mu nekkee kër dafa doon fatt. début bi xëy na commencé woon fatt mais comme. Euh, début bi muy woon këram. après il a fi des difficultés respiratoires. donc euh, di fàttali ñootul yi après ils ont fait le test. qui est revenu positif parce que avant test bi di positif mënuñu ko woon jël dans les centres. il fallait ñu xam ndax. loolu la Covid la ou pas par euh, des de tête. Mm mais je croyais que c'était mes migraines. Mm -hmm. donc euh, pendant une semaine j'avais des maux de tête mais le sixième jour j'avais une toux. Mm-hmm. le soir rentré chez moi euh, c'est comme si j'avais j'étais grippée. donc il musculaire, musculaire, des courbatures, fièvre, dyspnée d'effort. Je ne pouvais plus respirer. J'étais même obligée de prendre le, ventoline. Donc, euh, toute la nuit, le matin et le bonheur, j'ai toute la nuit, j'ai eu très mal. on m'a prélevé le lendemain vers 11h. Le surlendemain, on m'a donné les résultats vers 13h pour me dire que le test est revenu positif. Sur le premier jour, quand m'a amené à arriver à l'hôpital, euh, j'étais en sanglots. Je pense même que j'avais même une tension jusqu'à 16, tellement que j'étais dévastée de, je sais pas, de tourner le dos à toute ma famille, mm-hmm. de, de penser est-ce que je vais mm-hmm. J'avais atrocement mal. Atrocement. Surtout cette difficulté à respirer. J'ai failli passer mm-hmm. seulement pour une nuit. En général, maladie infectieuse de Fan hospitalise les cas qui sont bord de c'est-à-dire qui sont vraiment symptomatiques, qui peuvent s'aggraver ou bien qui sont compliqués, mais qui nécessitent vraiment une oxygénothérapie avec d'autres euh, traitements. On a du tout, nous arrive d'avoir des cancers du cerveau associés à une COVID, maladie rénale chronique avec COVID, là, des personnes qui ont été au niveau de, la tête qui viennent avec leur drain. Donc on a du tout, on a du tout, il y a toutes les pathologies qui sont là. Mais le plus souvent, ce qu'on a, ce sont les asthmatiques, les diabétiques qui sont déséquilibrés. Le plus souvent, ce sont ces deux-là et les maladies rénales trois pathologies, on en a beaucoup, en plus de l'hypertension artérielle. kon loolu da nga doon obligé jël njëgënaay bi fii waaw. léegi da ngay julli autonome. macha allah ci il est autonome léegi julli bi day julli sans problème alors qu'avant il était obligé toog julli. quand je vois les Sénégalais qui sont dehors en train de dire n'importe quoi ou bien quand je regarde la télé je vois les Sénégalais disent que ce mois n'existe pas là vraiment ça m'étonne ça m'étonne. nit tant que dalu la du munoo xam métitam man sax mun naa peut-être que am naa chance macha allah mais ay personnes âgées yi nekk fii ils souffrent ils souffrent. dañ ciy jaar dañ ciy jot. da ngay jékki-jékki gis fi ñu ne ñu ngi réanimation loolu suñu xalaatulee ñoom peut-être que dara du leen dal mais dañu xalaat ñeneen ça c'est de l'égoïsme soo xalaatulee sa bopp nga xalaat ne keneen yow peut-être yow am nga. Covid bi mun na ñëw jàllal la dem mais am na koo xam ne Covid bi moom suy ñëw mu koy jàpp. pensez à ces gens là de grâce suñu xalaatu seen bopp nañu xalaat moom suñu mag yi nekk si biir kër gi. il souffre comme c'est pas possible. dafa neex nga ñëw. te j'avais un jeune de 13 ans qui était là qui est ressorti j'étais contente. waaw kay la sama xol dafa sedd tey ba ma ko gisee parce que. papa man fi ba léegi. papa man fi ba léegi la kat. fi la fekk papa mais j'étais contente j'étais heureuse bi ma gis bi ma xëyee tey gis lal bi vide ma laaj infirmière bi ma dem na ñibbi. dañ fi duggul moo tax parce que déni moo gën a bon. yow nga gis ay kilifa. nekk mu dal la. si sa biir bopp yow nanguwoo loolu am. dangay nax sa bopp dana gën bon mooy mag buy nax boppam. yow boo nga teel ko intégré ñooy na xam ne noonu la ba góorgóorlu dem bi ñu ba yi yàlla ñu ngi def lu mën ñu mënul tam lu ñuy xam ne yàlla mooy wér moom dañuy jéem yàlla mooy wér gaa naqar moom dese moom mënuma ko gis moo tax ma ci profité waale remercier sécurité Euh, appui psychologique bu ministère de la santé docteur Aboussi ak toute son équipe parce que vraiment ñi ngi def liggéey bu macha allah bu jaar yoon non seulement ñi ngi accompagner maladie mais ñun tamit ñu ngi accompagner te xam naa ne bu dul woon ñoom man dof naa mu yàgg parce que ba léegi may wax ak yow mënuma miis dese saa yu ma amee dese ñoom woon nañ ma dalal ma waxtaan ak man wan ma ni ma àddina nii la doxee donc euh, sama problème daal man si fii bi mën naa ne jóguma ma stress sama seul problème bi ma am si Covid bi mooy les décès. di wax rek ni feebar bi jeexagul ne fi ñu toll nii ñoom rek ñu mën dimbale yërëm leen suñu ñu yërëmee dinañu yërëm te ñu bàyyi seen kër ndax li gën a garaaw si feebar bi mooy le fait que nit ñi gëmuñu ko. parce que pour que man damay am envie déjà des fois solal bu ma déggee nit di wax est-ce que am na damay am envie solal la nga dugg xool gis ma laata ni ñu sonnee. ndax dara gënul métti nga tëdd mënoon wàññi di fatt mu mel ne dañuy xëcc sa borom loolu dara gënu ko métti xamoo ndax soo ko di nga dund wala doo dund te loolu li si ëpp ay ñi nga xamee ni la xalaatuñu woon ne nañu am feebar bi parce que pour ñun l'enfer c'est les choses comme ni ñuy wax pour ñun daal dara duñu ko donc ak stigmatisation bi nit ñi lu tax ñuy ragal dem hôpital parce que dañuy ragal ku leen joxe alors que feebar bi jombul kenn gis nañ ci autorité yu bëri yu feebar te di ko wax dinañu feebar du mag bu ndaw du borom xaalis bu baadoola bi du kilifa aada du kilifa diine donc jombul kenn donc bu ñu defee loolu suñu xel ni feebar bi soo ko xamee sañe soo njortee ne da nga feebar teel jël sa bopp mun nañ la teel jël en charge nga jot si loolu baax na mais jeunes yi surtout que fi nekk nii c'est le relâchement total nit ñi comme ni ñuy wax naan dañuy dund virus mais nan la ñuy dundee virus bi dundee virus dañu war protéger ñi nga xam ne dañu vulnérable dañu war protéger mag yi protéger ñi nga xam ne même bu ñu dul mag am na ñu yenn feebar seen yaram ñooñu Covid bu leen jàppee maladie aussi mën na leen yóbbu donc man daal sama problème mooy jeunes yi nga xamee ni gëmuñu ko walla mag yi nga xam ne gëmuñu ko te feebar bi ngi fi lu am la lu leer. ee je remercie tout le personnel de SMIT, vraiment.